asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Corniche de la Strada euh, tey ma ñëw indil leen benn baat benn mot rek boo xam ni euh, day faral di ñëw ci quiz yi en réalité sax ay demande am ci quiz yi cinq demande la cinq yëpp falso la foo ko fekk rek mën ngaa def falso ndax euh, gisuma benn demande boo xam ni vero lay doon muy baatu facultativo mooy li ma encercler ni facultativo facultative mooy loo xam ni du obligatoire noonee obligatoire yooyu bu la neexee def ko bu la neexee bañ ko def loolu mooy facultative léegi xaar la ma jëm a ma jëm leen liiral euh, quiz yi demande yi bu ci nekk ma expliquer ko waaw bu njëkk bi dafa xam ne quando si vuole cambiare corsia bu fekkee da nga bëgg a changer corsia maanaam jóge ci corsia bi nga nekk dem ci beneen l'uso dell'indicatore direzionale jëfandikoo utilisation euh, signal direction yi maanaam signaler booy changer corps signalé ci boppam est facultative am mais nee nekkul lu obligatoire c'est ci zone de striché discontinue bu fekkente ne ligne bi nga xam ne moo séparé corps yi ligne discontinue maanaam bi def ay dagg-dagg la est falso ndax ligne bi bu fekkente ne du discontinue sax waroo def si waroo changer corps ya bay signalé mais bu fekkee ligne discontinue la nga war a changer corps nag bu boobaa da nga war a signalé waaw beneen bi durante la marche sur l'autostrade jamono yi nga xam ne yaa ngi dawal ci autoroute. strada extraurbana principale ak strada bi ñuy woowee extraurbana principale l'uso dei proiettori anabbaglianti maanaam utiliser lampe anabbagliante mooy lampe normale yi waxuma faar yi è facoltativo mu ne dafa facoltativo nekkul du obligatoire in condizione di perfetta visibilità bu fekkente ni euh, maanaam fi nga nekk dafa leer amul lënd mu defu dara perfetta visibilità nga fa am gis-gis bi leer na fa è falso ndax è falso ndax euh, facoltativo mooy loo xam ne du l'obli obligatoire te autoroute ak strada extraurbaine principale boo fa nekkee da nga war a signaler bu baax da nga war a taal lampe yi beneen bi dafa wax ne l'uso del casco utilisation casque durante la marche diventa facultativo jamono ji nga xam ne yaa ngi dawal mu ne dafay nekk facultativo facultativo mooy loo xam ne obligatoire quando la temperatura dell'aria è superiore ay 30 gradi bu fekkente ni maanaam jam jamono ji ngeen nekk Euh, température bi ëpp na 30 30 degré mu ne bu la neexee takk ay casque bu la neexee bañ ko takk boobu borom moto yi lay waxal mooy ñi nga xam ne dañoo war a takk ay casque mu ne tàngee tàngaay bu demee ba ëpp 30 degré jaru ngay takk ay casque bu la neexee def ko bu neexee bañ ko def ay falso da ko war a takk obligatoirement beneen bi dafa xam durante l'operazione di presegnalazione kon il segnale mobile di pericolo mu ne jamono yi nga xam ni yaa ngi def ne comme nga panne ci strada bi waroo jël triangle def ko ci ginnaaw oto bi mu ne jamono jooju è facoltativo l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità mu ne jamono jooju sol giubbotto wala bretelle yi nga xam ne mooy tax ñu man laa séen mu ne è facoltativo bu la neexee def ko bu la nee bañ ko sol è falso è obbligatorio bi ci toppaat dafa xam ne fuori dei centri abitati boo génnee dëkk bi è facoltativo per segnalare anche di mu ne dafa facoltativo nga signaler même bu dee bëccëg un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata carico boo xam ne dafa daanu ci carreggiata bi mediante il segnale di pericolo quando non si può essere to nettamente a 100 metri di distanza mu ne nga signalé ko ak triangle bi eh, bu fekkente ni mënuñ koo séenee à 100 mètres nekkul obligatoire et facultativo fuori centro abitato è e falso ndax boo génnee dëkk bi oto bi paan ci ci eh, wala am lu daanu ci strada bi oto yi ñëw nuñ ko séenee fu sori obligatoirement ma nga war a monter triangle bi kon non è facultativement et obbligatorio ok jërëjëf mbokk yi